ak ki nga xamante ni mooy 1 giga 1 giga nag defe naa ne du ngeen ko laajte ndax jot na fee jaar xàmme ngeen ko bu baax a baax du ma du ma ko téye benn noonu dama leen di bàyyi ñu nuyoo ñu waxtaan wi Tidiane Faye nuyu naa la. maa lay fay frère. ginnaaw bu ñu sant yàlla julli seenante bi sant suñu ñaari waajur. Mhm. loo auzu billah bismillah inawaani allah auzu bi sarri kalimatillahi taamatillahi min sarri ma xalqa kullaha waaw di sant ñëpp di sant sama gaay sant géejawaay gi ba cat fi ma jugee waaw di sant olympique mi nag bi sama doom nday atourment ndam bi yàlla na ko jik sant bébé bala tamit combat bii mu jëm yàlla na ko si yàlla may ndam karbala maa sant bu baax gaay yi ma àndal ñëpp waaw di sant waa minam bi nag jàpp géejawaay marché bees garage saret yi waaw jàpp foofu ba virage majale gi jëm noonu alba xam nga jàpp ba monument jàmbaar maa ngi woo ñëpp si laamu ji di woo sama gaay yi nag ñoom Sira xam ñoom Yoro Diagne dama yooyoo gi xam nga minam gi ñëpp maa leen di woo combat bi mobiliser waa Gunaas yi tamit ma fiyaa ndigal gi woo naa gaay yëpp waaw ak waa yi tey. woo leen ne leen ñu ñëw ma jàpp leen ma jàpp defaral un ziga si kàttanu yàlla maa ngi woo tamit waa guy ga duma leen fàtte maa leen si woo bu baax baax baax ndax ginnaaw gi dafa yaatu macha allah. marché bees nag mooy baas bi garage saret yi. Mhm. waaw kaar yëpp ay ñëw. tii lay xaar. ne la ñu àndaale xiir bu bu yéegee din ma yéegloo ko ba mu wàcc. bu ñëwee bëre ma bëreloo ko ba mu doyal tëddal boppam bu xeexee ma duma ko daan ko maa ko mun fuuf wax ji nag <laughs> du bëri te li ma wax si kàttanu yàlla le jour lu waaye waxoon na ci dellu. Hmm. di sant sama frère ñoom Moussa ñoom ibaa di bëggee gars yi xam nga di sant sama yaay mère Dieye di sant sama yaay mère Aïssata lii mère Kalmi xam nga suma yaay Aïssata Sow maa koy sant bu baax sant suma papa. di sant bàyyi ko ci ñëw. sama yaay Fatma yaay bébé Modou Lo di. bàyyi ko mu ñëw ñëpp waaw. jaajëf. monsieur nuyu naa la. ma sant yàlla jul si yonente bi moom xanaa bi day doo commencé. day <laughs> da ngaa tiit defal daa ma sant yàlla jul si yonente bi. sant sama waajur. Mhm. sant ñaari waajur. di sant suñ Moustapha Mbacke borom saam di sant suñ Cheikh rijaalu laa ñun ay waa këram lañ di nuyu waa jàmm ga di leen wax ni waaw seen doom ñëwati na. Mhm. namu nañ ko namu nañ ko bu baax te li ma leen dencal moo ëpp lii kii du maa moom presse bi moo ñu boole. la moo leen boole. presse bi. presse bi leen ni ko gars yi di affaire yooyu. mais wallaay li ma la kii maa moom du làmb ñi mu jour bi di nga xam yow defal ndànk bi ngay wax damaa noppi silvisé jour bi di nga xam ne du ma sa naataangoo temp ah, bi ngay wax damaa toog correct waaw may ko mu ñëw maa la gën a bëmm maa bax bax baxaa boo koy wër ba egg si fii jàppal defal ndànk yarul fii waxuñu fi indi du bëre bu jour baa di nga doyal bëre it moo lay wax amul leen leneen lu ma koy tegal xam nga la laa bëgg a xam waa jaama gën gépp si kaa mbaaw te li maam jaara waa boroon sonn ñoom ñëpp nañ ñëw ma def ko comme na ma ko doon defee kii nee naa leen xam la ñooñu boole presse bi lambu presse bi la dama koy may journaliste yi pare que Serigne ba lu ñu waxtaanee laa ni di jox <laughs> waaw di sant sama waa koñ bu baax a baax a baax di sant ñoom Fallou Cissé ñoom Zé waaw di sant ñoom Yaya di sant waaw waa retour yi combat bi ma indi te des na. indi woo dara. ba ngay wax damaa noppi déglu ba ngay wax da ngaa noppi mënoon naa laa tontu déglu ma ba ngay wax da ngaa déglu la. xam nga nee nga dañ laa yedd man dañ maa yónni buñ la yeddee da ngaa war a yaru def teeg ma dalal la man maa lay dalal biir esaat. noppi bul wax eh, noppi bul wax <laughs> noppi bi da ngaa noppi. kii day yàq émission quoi xamuñu teg le jour si doo def dara yow. <laughs> boo si da ngay xaar. jàmm gën duñ yoole duñ yëngal. man dañ maa yónni. sol eh. ma ba ma fees jàll tarki ndaa vere. un euh, soo bëree ma daan la boo xeexee ma duma la nga toog lii maa la ko wax fii tey lu waaye waxoon na si dellu eh maa la mun maa la doole un ziga fu ma taxaw doo ma déplacé. xam nga ne wax ba nga abal ma. wax fi indi. jërëjëf waay lañ waa Gunaas nekk sama ginnaaw waa marché bees. waa ndaa yi waa Caaroy Minam ñëw. waa Alba. gayaan yow gayaan noo doon. ma yëngal waay barki alxuraan eh, kii dama koy guux waay sànni kaas bi dama laa gën a pare barki teer rek balaa maa guux sànni kaas bi la taalibe borom saam dama la mën téeméeri kii ci kàddu yàlla laa ko laa ko kóobir wax ngay jug su ma jugee da ngay dama la doon yootal bee passé dama la doon yootal nga yaakaar ni ngaaka nga dajel ki nga dajel xamoo ko yaa ngi door a dajeg géej gi dinaa wax sa bopp dinaa la yar un cas toogal ñu yëgale waxtaan wi toogal. maa may dama la doon yeetal. yow xoolal. jëmm ji ba ma la coupé da daw jàppee da ngay. waaw nii yow tey rek nga daj dëgg mbokk lay demee ci jàmmaarloo. ki tey ma defalu. di nga gis loo musul gis. <laughs> mafia bi bu ñëwee da ngay tiit amoo mbooloo. maanaam bu ginnaaw wax sama waa mafia du maa laa dëkk yarul déglul kii àddina ñoo ma xam. yow da ngay door a door te dinaa la dalal. day doog a doon dinaa amaana damaa njëkk a génn mais dinaa la won ni maanaam dajawoo ngaaga. gis ngeen mbokk yi ni lay demee maa ngi nuyu promoteur kii nga xamante ne mooy promoteur bi muy petit maa ngi koy nuyu di ko jaajëfal di ko wax ne làmb lii la soxla làmb coow amateur koy bëgg euh, supporter yi tamit dañuy namm lii. un giga def na benn combat benn victoire Tidiane Faye nag defe naa ne bii mooy premier combat am la moo tax nga jël sa premier combat fekk euh, un giga coow lu topp ko mu bëre daan nga nangoo bëre ak moom. waaw parce que man dëgg la munu ma ko bañal coowam mais man dama yàgg dajeeg ñoo xamante ni nii dañ leen di coow amaana si ñii naam munu ma leen a daan. Mhm. yaa ngi loolu nag loolu nag moo tax ma jël combat bi pour pour le dire sama ménagère père Djili maa ngi koy nuyoo passage. <laughs> ñëwal fii waaw. sama ménagère per Djili maa ngi koy nuyoo passage bu buñ ko waxee combat rek dana ma isa xam nga ki ngay jël ma ne ko père dama koy daan te si kattanu yàlla dama koy daan. foog nga teg loolu. daa ko maa ko gën a xajam maa ko ëpp fit maa ko gën a pare. kii foofu laa ko teg tegu ko si leneen li may liggéey moom si benn fan da koy liggéey si semaine ñi may kontaagal ñoo ko ëpp ñetti yoon doole munu leen yëngal man samay adversaire yi ma daan dañ koy may wër ndoo ma day toog kii du mbër. ngeen baal ma si kaddu bi su ma nee du mbër le jour si man maa ko war a confirmer te dama koy wone si kattanu yàlla di woo gaay comme ni ma leen ko waxee démb sama gaay woote bi teel na woote bi teel na bu ci ñëw dinañ ñëw rek ma defaral ko waaw dinañ woote un giga lan moo tax nga bëre premier combat daan bàyyi ko coow lu topp la nga ñëw jël Tidiane Faye bëreegul kenn xamagu ko nga nangu bëre moom ba noppi nee na moo la mën da lay duma da lay daan waaw dafa naa ne ñun moom kii amul leen lu ñu tiit man xam nga lan moo war déedéet lu ma war laa la wax xam nga lu ma war xam nga ko. nga def ko. Hmm? boo ko xamee def ko. la laaj rek nee ma lii moo la boo ko xamee yow nga def ko man lu ma war laay lijjanti. lijjanti mu la war li ma war ma wax noonu loolu laay def. Hmm. ñëw jàpp la daan na jël bu rëy. kii nee naa la combat bi journaliste laa ko may. dama leen di may combat bii nii lu ñu waxtaanee kii du ma maa moom du làmb. Hmm. bu ne moom ëpp fit. man yow coppit ñamet la. déglul ba ngay wax dama noppi. coppit ñoomit la fu ma la fekk jëlee la fa xanaa xamoon ki ngay waxal yow l'enfant de Guédiawaye Tidiane Junior. boo doyalee nga wax. waaw doomu réew mi yëmbal ak Guédiawaye parcelle lu ko wër ñëpp waaw te loolu noonu le jour di nga gis loolu yow. dégg naa nag nga naan bës ay succès moo tax nga jël combat bi affaire yooyu noonu nangam sangam man jooyu ma succès. soo paree nga su ma ñëwee nga xam ne maay succès daa am ñu nekk sama ginnaaw. amaana nag suñu borom moo dogal mais sama bëtub tan lu bàcceeraas waxoon ñu Modou Lo laa lay waxaat xem la médum melentaan yow sama bët dalaa jël li may liggéey du pour yow fu ma la jàpp jël la boo taxawee dama lay duma nga bàyyi amul sa xel ñaar loolu du ko hésité nii nii nii bu ñu waajoon léegi léegi ma defaral la dugal fële si si laa bu paree rek mu <laughs> mais nag leer naa lay wax. pare. mais nag sa waay bi dalaa jékku. danga maa laaj. dama ko mën jekkuwuma ko danga maa laaj. waaw. Hmm? Hmm. man ngay waxal laa bëgg xam ko dama la mën. <laughs> te doo wax ma wax benn affaire suy wax may wax. waaw nit xam dañuy wax. yow la rek. waa léegi mais la la Tidiane may ma léegi nga may ko léegi moom mu wax. waa léegi ñëwal. wallaahi bu ma yëngalee dañuy kew dañuy laxas yi. barki Serigne Touba Mbacke kii maa ko ëpp coow fuuf. ah maa ko gën a nekk tarki ndaa. mu ñëw dama bëgg mu dal xam nga affaire bi la bëgg dañu fii xam nga lu ma fi hmm. pour wax day toog ma dalal ko mu wax état li koy wax loo sax xamu ko. barki borom Touba Mbacke bu laal sama sooj. yaa ngi dégg ki koy wax loo nii xamu ko boo jëlee avance un nag da bëgg bës ba booy toogee li Laurent waxoon rek. sànq dafa wax joo xam ne. may may ko mu ñëw di ñëw <laughs> waaw. waaye lan la kii kay def maa bëgg booy ba pare dama may sama photo naa la daan ba pare defal la foto bu rafet kii xam la laa bëgg mu xam ko. man dañ maa yónni yàkkamti ma di sandaale waa tëli maam jaara bépp. si yoon bi laa lay doo àgg. di leen waaw baax na boo paree rek nga wax ma di leen wax nag. làmb jaa ngi nii na woon fa woon na gaa yi ñëw mobiliser wu dooleel ma. Ah. sama grand ñoom Modou Bamba ñoom Feu Rouge ñoom Sita Yamlin bi ñoom Abu Ndiassé. dooleel jàmm gën 100 pour 100 jàmm gën. nga ñëw daanu. seen doom man daanoo gu ma du yow yaa may daan man gisoo man xooluma la woon sax. yow yaaj ci boole sax. sama ginnaaw ragaluma leen. man ñi maa ngi nii toog bébé Balla. maa nekk sa ginnaaw ñoo ñëpp bu ñëwee dañuy xaar. Pape Thiam mu foofu man. amet kan mu ngi foofu caatu Pape Ba yow yow ay ay mafia nga wax. bu dee mafia kese yow da ngay xaar Mame Balla borom top 5 moom moo ñu nàmpatal si làmb. Mm. ñu xam la mooy làmb. waaw dëkk Téléma Diarra la si te moo fi indi làmb de te si kawam lañ jëm. dinaa roñe booy yëpp jàpp si te defaral ko. yan booy. benn par benn. su ma jugee si yow maa ngi si booy bi. yow da bu si moom moo ko xool sax bës nii nii jël ko quoi loolu moo gën a métti naa la daan daan booy benn par benn. wala kii wala waxu laal si ta xanaa la ngaa dof xam nga yam bi yow koo soxla ma laa xam bu duur baa da nga dalal nii ni waxee nii xamoo ko sax waaw le jour yi lu waay waxoon na si dellu mais li ma bëgg a xam mooy yéen ñaar buñ tëjee barrière yi dama lay rey nga wax. xoolal bul réguler. un pas mu defaral la. Tidiane li ma bëgg a xam mooy. seen combat yi ñaar est mën nañ cee xaar xeex. kan kii nii bëri sax nag xanaa mu daw. ñi nga xeex ak Tidiane kii du kuy taxaw ak man biir géew. combat bi. ñi nga xeex ak Tidiane combat bi. combat bi bu dëgalee boppam duñ ko bëree si une bu xeexee dama koy duma mu daanu. bu bëree dama moom bëgguma ko ci combat dama bëgg ngeen xeex lu métti bëri lu métti. kii maa dul bëre moom une eh. si lay yem. Baaraas Balla Gaye moo ñu ko jàngal. Eh. doomu géejawaay bi loolu la doon wax bu muy door door ñun dañuy door a door ay xale lañ. mën lu ñuy def. kii du ma ko baal fu mu fu mu nekk dama koy jëli ci. bari wax am na tey laa xam ne kii moo bari wax. te le jour di nga xam sama bari wax sama jëf a ëpp. nit xam ne yow man xam la laa bëgg. nit boo waxee nga xam ne sama bari wax su ma jëf moo ko ëpp. wax indi wuñu fi damaa bëgg nga jëf ko nag moo ëpp wax ji. man jour di dinaa jëf nga gis lu waaye waxoon na si dellu sànq ba léegi maa la koy wax. yow mi nii. lu waaye waxoon le jour di bu ñu tëjee barrière yi na si dellu te dinaa la ko deewaat wallaahi maa tànk bi bu ma ko suulee taxaw. déglu ko mu ñëw déglu ko mu nga ne nga ne ko. maa ko dàq bëre. Hmm. buñ làmb ji. yàlla laa la wax buy maye na maye ki ëpp fit ki dàq bëre. Hmm. ah ki ëpp doole ki ëpp sañ-sañ. Hmm. yàlla na daan ci combat bi. kon daanu nga mbër daanu nga. yaa ngi nii di fëgg dënn daanu nga. dama lay daan ko pare. barki Serigne Ba mbër da ngay pare. waaw eh, yow yow yow foo mu war a jaar yow su ma taxawee yow foo mu war a jaar. di ko xam eh, yow foo mu war a jaar su ma taxawee ne la nii. Eh, foo war a jaar dama lay tëru foo jaar dama lay tëru fële laa lay sànni. waaw xanaa la ngaa dof yow. boobaa di jour baa di ko. ki ngay waxal nga xamul ndaamale ngay waxal ndaamal géejawaay. yaa ngi door a jot ci caat yow doon ndaamali ma doon ndaamali. da ngay xaar ndaamali ndaamal dëgg boo ko gisee da nga koy xàmmee. mbaa du ndaamal màcc la ñuy wax. <laughs> yow. ndaamal laa ngi nii doo xool a jeewata. jooni mi jeewata. momi yi te a wawata hen dara e eh, on paamani tawa nane ko nono mbiɗa mi yiyatama sa ari ko les mbaɗanmami toru mi jagete min momi yi ɗo dërëm li ngay laak déggogo doomu jolof jolof bi ngay wax sotu buur siin lu leer laa lay wax doomu ñaamur ñaamur doom jaa ngi nii déggoo mu de Louga loo teen doof jaa ngi nii. bëri yow li nga dugg xamoo ko sax. xam nga laal benn affaire rek. Mhm, toogal li nga dugg xamoo ko waaw toogal seen waa ko gis ko. non. di nga siiw un ngay bëre. du ma la jàppee ba bàyyi la di nga siiw. sama waa koñ. sama waa koñ xam naa mosoo feeñ tele. xam naa xoolal man dem naa Africa 7. seet nga ma. suba woo nañ ma. léegi man suba ñëwal ma invité suba ñëwal ma invité la. ma invité 18h ñëwal sama kër. namu ma émission Karbala bi may xaar sama koñ. moom laa lay wax pour yow xam nga yow pare woo Sidi suba ñu ngi sama kër 18h incha allah. man na ma siit xale si eh, sama wet xale. di nga gis loo mosu doon gis ni lay demee ci jàmmaarloo ni lay demee ci jàmmaarloo woo ñaari mbir waxtaan ak ñoom. wax ak ñoom ci seen oh, combat wax ku ci nekk. naka du jóg doo bëri. Tidiane Faye. après di nga ñëw si yaay amu solo la nga waa ji un giga. kenn ah, ku ne xam na ni euh, daan nga bëri mais mosoo bëri ku toll nii un giga. naka ngay waajalee combat bi. waaw combat bi nag moom dëgg yàlla bu caaxaan passé rek dëgg si des instant bi mun nañ ñu pare nañ fii may wax ak yow amatul luñ siy waajal parce que dañu see fekk ñu si dugal xëy na ñu ñu xam ñu bu baax a baax a baax si la xam nañ ci la defoo dara. yaa ngi dégg le jour di yow di nga ma xam. digaa lañ xam. Euh, soxla ma laa la. ba muy préparation bi lenn kese la maa la ëpp maa la gën a préparation bi lenn kese la préparation ñëw ma jàpp la sa yaay déggoo ma sa yaay day ñëw ña da lay ma jàpp la daan la. sama yaay sama yaay. boo ma yëngalee di nga xam ne man sama yaay waxal sa soxla na ma lijjantil man la dooruma bu mag bu mag a mag a mag a may nàmp ba la jour si. Mhm. ma ñëw fekk ko fa. loolu kese mooy préparation bi. mais bu dee maanaam si si yeneen côté yëpp pare nañ léegi léegi. day xaar. Eh. yii maa yow maa ko ngondaa loolu noonu samay mbir la. yow de neex rek ñoo hmm. ñëpp bu ñëwee ci ginnaaw saako bi dañuy taxaw man ak yow arbitre bi la dóor koy waajalee Tidiane Faye nooy waajalee wàllu entraînement du tax may def lu ma munut may def lu ma ki mu bëreel moo ko ëpp doole foofu ko diis wallaahi munu koo daan rasumaan bu mag boobu loolu da ngaa sañ a bëre ak man bu jour baa nga bëre ay jàpp nii di rasu nii ak ñii dinaa la may yooyu dinaa la wan ni ma déggoo ma ne dinaa la wan ni jàmm nga ñoo dàq bëre naa la pompé huile ba nga yoor ah bu jour ba di ko def li soxla mu kaa gis yow mu wan léegi dafa teel da nga ko xanaa bu ah? dama la ëpp pédagogie yi ngay jaay dama la koo ëpp dama a pare nga da ngaa a baax man damaa pare pédagogie bi ngay la koo ëpp la ko waxee nga gëm ko ci kàttanu yàlla dama lay daan toogal yow paa euh, nga. instant bi la xam nga mooy suñu problème. Onziga instant bi wax kese la quoi mais bu doon jëf la tëri nga. bu yàlla wallaahi buñ ma may la deux combats. boo dëgëral sa bopp bu jëfoon nga tëri. barki Seydina Muhammad. keroog xam nga yaa ngi ñëw naa ma dañ jéggi di a peese. a pare barki alxuraan dama la gën a pare. jéem kii di expliquer. mais yow moto mbuus te doo yàqu dërëm. moto mbuus te doo yàq dërëm. toogal la <laughs> bëgg nga xam ko. da ngay xaar ñor nga dama lay def si lu tàng nga seey. diw ñor yow. <laughs> xanaa déggoo. boobaa mbaxalu laa koy booleel ni ko corbet. da <laughs> yow eh, da ngay xaar yow ngay diw ñor nga naan mbaxalu saalum boobaa laay booleeg diw ñor bi ni ko coppet oh, yow kese amoo ni ma koy lekkee mba diw ñor nga indi ma lekk ko yow bu jour laamu jaa nga ñëw ma daal comme waa tali maam jaara dañ laa bëgg sa waa koñ ñoo ñoo ma yar fa laa dëkk fa laa juddoo bul tiit bul daw bi dënn bi rek laa lalaan deme bi xoolal de la bondage guddi du ñu reer bu dee bëgg nañ la pire lalaan deme bi du ñu ndékki ndax yow buñ la gisee dañ lay yërëm maa la teg laa la yellu metti yow loo ma ëppee naa la yow jéem ma la dara ce jour ba nga koy xamee. kii nan la toll man ba may tiit si yow. si nga koy xam ma la ëppee yow a capable gën la pare man maa yónnee. nee naa tarki laa damay soog a door. bu may dem ñaay. fooy jaar fa saatee amu laay war. fooy yow yaa ngi entraîné kon. fo fo fora fora. yow yaa ngi entraîné. jaamu gën xam naa fa bu baax a baax. bul naan doom de di yàq sa état. non non. ma naan doom jaroo ko. bul jël vitamine nee naa man ngay wër yow yaa may wër ma la tegu ma woon si tegu yow ma woon si yow nga naan ma yow man ngay wër yow yaa ma wër ma jël la mais mais mais eh, eh, ñaaka pexe moo tax ñaaka pexe moo tax nga jël bi nga bi nga kiiwee xanaa sëriñ si moom ñoo ne la waa léegi baax na bi ngay seetlu ji dem di seetlu say business naan non booy bi nii di expliqué nañ ma envoyé ay photo nañ ma yónnee boobu wala dañ ne la léegi na doo si dal barki alxuraanu karim doo si dal kii dama koo ñëw seet si ko fekk ko dañoo ñëw ñu daje Mhm. mu sol nga di pire comme mu sol aligné am nit booy dem am booy dem fenn bi <laughs> undu laa undu ngay waxal yow. may ko doomu géejawaay boo amul ku solal ma boole la ak Fallou Cissé. non non fi borom Peter Set. kon de bu eh. kooku nekkul ci pukkus yi de. ay fora ay jàmm gën. kee rii ponti yi la nekk. rii congu Peter ah. Set di ko toj. yow daal yi ma sor rek moo gën a seer li nekk si yow yëpp daal bi kese. na lii waxal ensemble bu junni la bu ñu sonal. ah xam nañ ay yére. moom yii da koy aligné. wala am nañ ay kulus man koy entraîné man yii man yii mooy sama plastique Soucoura Diaw ma gën. man moo may jaay daal man may aligné fort ku dem aligné fort dem entraînement. war sama oto. kii dama ko gën a osé war sama oto. taal sama oto di dem entraîné. man da yoruma oto. vélo munoo dawal xamoo dara sa xel naacul da ngay def ndànk ma dalal la un ngay dajeel dafa wër. yoruma oto mais bébé Modou Lo 205 bu mu yor ah. <laughs> yow ay oto bébé Modou Lo nga may wax. ak rans bi ma la war a indil bu ma ñëwee le jour bi nga xam ne sa kalandoo boobu noonu. xanaa da nga luye yi may war man. si sa avance mu jeex de. non non du luye. bu luyee rent de. dafa am nekk sama ginnaaw du ma luy wala Mor Loro mu jël si la. grand combat bi maa leen di ëpp mbooloo si kàttanu yàlla maa leen di gën a taaru ni may duggee. yow da ngay xaar man jëlal naa la grand combat bi si boppam. bi nga ñëw fi da ngaa dox sa daal yi nga ñëw tey ay gabaar si dan la atourement bébé bala dar la. marle Pape Diam do ñooñu buñ mo yow dama lay defaral. tiyaan tiyaan waaw waaw waaw. waaw. tarkindaa. yow da ngay wayaasi dëgëroo. parce rasu yi nag liñ fi wax yëpp nañ ko jëfe maa gis dangay ngay rasu fuñ suul tànk yi buñ ko yëkkati. bu bëree ba boo koy may boo suuf bi da nga koy andi koy da nga koy soppi. ko moom booy mooko ko woy sama woykat booy mu géeja waay wàcc leen <laughs> eh wàcc leen maa ko moom booy moo ma ko woyal bu géeja waay. Tidiane Junior wàcc leen si suuf maako moom. bu ñu wàccee nga xaar yow bu ñu wàccee nga xaar. naan ay wàcc leen. kay duñ sax benn. waaw wàcce ci waa jël ah. wàcce ci ah. suuf. ah ah ah. ah. raamal du ma ko wàccee ci suuf. fii laa koy wàcc ci suuf. wàccal ci suuf. ci suuf si taax laay wàcc ñëw nga naan maay ngaaga. Tidiane kaay toog. eh say escalier yu kawe laa wàccee ñëw fii nga naan ñu ngi si troisième. xool ko. noonu laa ci jàmmaarloo. loolu maa ko moom. bu ko forcé mooy moo ma ko woy Tidiane Deux waajal ci suuf ku ne dégg noo ko. kon Marco di BM Ndiaye jëlee. tuube xaar yàlla BM Ndiaye. jëlee jëlee jëlee cos. mooy yëg noo moom ba léegi. Eh, ba léegi maa ko moom. jëree boobu maa moom yow yëpp jaamu génn. yow yaa xaar si boppam. cas cas bi du foofu. Eh, cas bi fii cas bi fii Tidiane léegi na lañ woote ñu tàggatoo ba beneen yoon doy na ko jële ay cas nga yëkkati dafa sa jë cas cas ah maa la dàq ambiance Tidiane bu ñëwee lamb ji nga xam ne maa la mën si ambiance su ma ñëwee ba ni nii gars yi ñu xool ma nga xam ne maa mën ambiance. boo leen ni maa ngi nii ba gars yi yuuxu na ma doxalal nga xam ne maa la dàq ambiance. bàyyi sama yëf loolu maa ko moom bàyyi sama yëf wala doo dégg. joomi nga nag. non yow non sama yëf nee naa la ko xanaa mënoo bàyyi si ñëpp. loolu lañ wooteel ñu tàggatoo ba beneen. waaw ñu ngi ñu bu fekkee tamit lu ñu fi wax dafa may dérangement ñu ngi jégalu askan bi yëpp. di woo sama gaay xama di woo Kaaw Bokum xam nga dafa yàgg sonn si man di woo ñoom Père Abdoul di woo suma suma suma grand yi ñoom ñëpp ñoom Kaalu Sow di woo suma grand yi ñoom Kaalu Dia xam nga di woo waa Gunaas yi woo sama gars yi ñoom. atourement ñoom bébé baal xam nga di ci woo Marley nag bu baax ak gabaar mhm. di leen ci woo xam nga Pape Thiam sama doom ndey la ma ko siy woo bébé Molo moom tamit sama doom ndey la ma ko siy woo baax a baax baax di wax nag waa Minam ji mhm. seen doom moo xewle ñëpp ngeen mobiliser équipe bi xam ngeen nuñ ciy sonnee na ñëpp ñëw prési xam nga di Sarr yow laay waxal prési combat bi sa combat la loo war a jàpp la ni ngay taaralee jouru équipe bi gars yi ni ñuy mobiliser dem loolu laa bëgg mobiliser waa Gunaas yi tamit yéen tamit waaw seen doom a ngi gis ngeen nu mu demee démb rek ci whatsapp bi mën ak yéen dama bëgg yéen ñëpp ngeen teel a ñëw fanaan si yéen ñaari fan ngeen di fanaan si sax waa Gunaas xam nga waa lew na gi door a ñëw xam nga di woo sama gars yi may sa ñoom maam Thier xam nga di woo ñoom Nigara ñoom Baro ñoom Kaldu di woo gars yi bu baax a baax a baax Moussa suma rak ma ko siy di woo Iba bu baax a baax si combat bi sama rakk yi nag ñoom dëggool mafia bi yéen a ma gën a xam dëggool waaw. 30 kaar yi na ñëw yow kese 30 kaar ga kii lay xaar yaa ngi comprendre waa école Ababacar Sy bi nag di sant école a Ababacar Sy bi ñëpp da ngay déglu da ngaa tiit xanaa. may ko mu ñëw da tiit da ngay déglu xanaa da ngaa da ngay déglu. waaye école Ababacar Sy bi laa loolu xoolal nee naa loolu yow du sa ngaññi. neel ngaññi du sa ngaññi yow. xoolal non non non non non non man nee dama am lépp rans yi dañuy ñëw. particulier yi ñëw. waaw xoolal fanaan. rans yi ñëw particulier yi ñëw li ma lay wax nii ay foode. su ma ñëwee wàcc si jour estade bi nga xam ne ndaamali ñëw na dama lay yow yow xoolal dama dama lay déconnecté yow un un era laa lay indil teg la virus un era mooy 1000 giga tegal la virus formante nag sa bayre dinaa ko baag yow nice nag mais su ma neewoon dama lay daan bu bari nangu bayre eh. Eh. di waaw loolu waaw jaal na yàgg yàgg moom la waaye loolu taxul amu amuluñu benn drangement baal ma continuer sama woo xama ah, xama di sar prési waaw zil boogum di si woo sama grand zil boogum waaw di si woo sama grand dil boogum di si woo sama goro tamit Babacar di nuy waale sama rak mention spéciale si rek waa xam nga gars si kenn waa Alba waa Alba waaw bis bi seen bis la waaw seen doom a xewle champion yëpp a ngi foofu maanaam li nga foog amut bu dee tarki ndaa gaynde yi ak daarmaani ñu ngi sama ginnaaw boojo boojo yi ñu ngi sama ginnaaw ragaluma lool dama lay jàpp un yow xamal nga yàq nga sama biir yaram dama lay seen bi teg na la seeti leneen taxoo maa jóg si kaatanu yàlla. may ko mu tàggatoo un giga wooteel. sama coach box maa ngi koy sant tamit bu baax ak góor a ñaa waaw liñ liggéey moom am naa confiance xam naa ni kii dama koy dóor mu daanu Bamba lool nga ma wax si kaatanu yàlla dama koy dóor mu daanu incha allah. waaw jaajëf wooteel tàggatoo. woote. boobu ba léegi eh, wax ay wax ay mag ak ay. boobu ba léegi ñaxoo. boobu ba léegi. man kay ngay wut foo korkoral ma defaral la. Eh, doomu réew mi ngay waxal boobu ba léegi ñaxoo. état bi nii sa mooy loolu. Tidiane Tidiane toogal. ko guñ ci de ngay sangu nii di def ay grimace nii nii yooyu daanu ma dama liggéey. waaw boo boo euh, jógee ci combat nag beneen combat boobu bii moom incha allah dama lay daal. Tidiane non non. ma ko simmi beneen yére bi du ko simmi. état bi bara rek laa lay woon xoxatal. baraay laa lay woon xoxatal du ma simi beneen yére bi. man nag jàpp na la. man du ma sangu xale di ma yërlu. defal laa bëgg nga def ko. eh seek nee na mbasaa mbasaa mbasaa mbasaal. di woo sama doom nday caat seek. si combat bi caat maa lay woo mbooy woo naa la si combat bi. eh Modou sama ambianceur woo naa tamit li ma lay wax ñi ñëpp loolu. Tidiane may ma may ma un giga un giga un giga <laughs> <laughs> ah tiit <laughs> ah, ah, ma taxawee foo may yëngalee laa bëgg a xam man ah, man foo may jaar laa bëgg a xam Abdourahmane kii fu may jaar Tidiane Tidiane Tidiane Tidiane Tidiane kaay toog may ma tuuti waaw awal ma awal ma kaay waaw waaw toogal toogal léegi toogal waaw toogal. Aziz Ka tàggatool. yow ay kalifa nga waroon nekk léegi mu dóor muy boole wala muy lëb ngay door a xam ki nga joteel yow. sama acca demal tàggatool. vraiment tàggatool léegi da ngay xalaat mënoo xalaat. bu xalamee lu neex ma waxtaanee ci dara li muy xalam nii mooy bu dóor laa bu jàll dama koy bégal ba mu bég. moom ay supporteram moom ak ay supporteram ma jàpp ko daal di jël bu rëy ci làmb ji maa may képp kuy journaliste yow laa may làmb ji. kon de bu yeboo ñu waaj. bu yeboo ñu dinaa daal tiit xam nga nee naa la un tey jii nii fan la yéemee gars yi mooy toll ni nit ñi. Mm-hmm. li ci moom nekkul ci kenn li ci un. Mm-hmm. nekkul ci kii waruma kii du mën a kii kii lenn ñu boole bu jur mu ñëw ma jàpp ko def ko kii mais du pour kii di man du pour kii. yaa ngi wax bul wax xalamal ma ma wax. waaw xalamal ma ma la man nee waa Borontoon ñoom ñu yónni yàkkamti ma la. waaw man daal jàmm nga ci gàmm baax xamal ñaari loxo benn loxo taa yooyu. non force la. force bee tax. bu koo gis xalamee benn loxo mosoo koo gis. force non lii boo ko laalee doodoo laalati sa machine bii du tàkk boo wàccee du daw de.

Amadou Ladiane maa ngi lay woo si lamb ji bu baax a baax Tidiane bu Bulaal waa Bulaal ñoom caat xam nga ñoom Sowru Ndiaye gaa yëpp maa leen di woo. waaw boo paree ñëw waa Bulaal yéen tamit xam na waaw jàmbaar fàq tëdd ngeen si man. ñooñu may woo ñëpp nag ñu ngi sama ginnaaw. dem si guddi rek sëkk ak jóor. su ma leen waxoon léegi léegi bu fekkoon ni maa opté woon ñu ñëw kon set car laa fi indi un pare woo. yow lu bëri eh, xaaral wat seese. a ah, waaw waaw. wat seese. ziga tàggatoo balaa maa mi micro bi. dafa tiit mënatul a tàggatoo. man xam nga mënu ko maa tàggatoo. ñi may woo dañoo pare. mu leen woowee dañuy ñëw su ma leen woowul dañuy ñëw. combat un laa la wax de un xam nga lu mu ci am demal nga bëre ji man ñi may woo ñëpp ñoo may takkal sër. yónni ma boo yónni xale noo koy def kaay ma la barki yàlla. su ma génnee nii lañ may def. waa Corniche. ma dem jëndi ko ci fula. leen di woo si lamb. te yow nekkoo kuy jaay yow. yaa ngi comprendre yow mënoo maa jaay. kii nekkul ku jaay li may wër du lii. leen di woo bu waruma kuy tëb di xët xët dama bëgg. di woo waa marché Maam Karaf marché bees. ay waay tarakindaa yi fa nekk yëpp ponkali daarmaani waa marché bu bees sànq rek maa leen romb. waaw naa yas nañ ñëw. bu ma dese dara man maa ak ginnaaw man jooyee ma xaalis. ay supporter ñu tàggatoo. waaw woo say supporter. muy ratatati nii rek. yow kay xamul xalam yow munoo xalam munoo wax. waxal tàggatoo wol supporter di woo waa jaamu gën bul xalam ayoo defal naa ngir yàlla bàyyil kii dafa tiit. di woo waa jaamu gën si Kambaaw. waa Fass waa Tëli Karo. waa Guy ga waaw Fass Mbao waaw Fora. foofu maa la fa gën a dëkk Fass Mbao googu sama papa ngi foofu samay mag a ngi foofu. benn Fass naa fa lu ne yelwaane naa fa def naa fa ndongo daara yow boo yow xam nga Sénégal ngay waxal. dama doon wër foofu nag fa laa juddoo man. yow xanaa xam nga may ma tuuti ma ñëw nga ma bu baax. foofu may ma yow boo xoo si ñu ma fa doon pëtam sax côté Alaya yooyu noonu. damay nekk gone man maay borom tefes ki daf may may ma de daf may may ma wax yow boo xoo si ñu ma doon pëtam foofu. non non ki ma wax ko man nangu bi day noppi ma wax. sa mbégo kan ba du noppi sa mbégo da nga kaa sañ a téye yow. kan eh, dafa ndànk rek. kii dama koy dóor mu voyagé mu naan koy nangu sa li nga moomul micro bi moo tax nangu ma ko mais bu kii yoree bu doon sa micro la. laa la dem ma damm ko. doon noppi yow yaa moom nit ñi yow. ngay ratatati nii rek. ah tiit xanaa. tiit man mënoo ma tiitloo mënoo maa xoxatal jàmm nga laa dëkk tarkindaa laa. buñ tëjee bari yam wala yam loo buñ tëjee barrière wax ji jeex wax ji fii la yem. xamoo maa la njëkk xam barrière defal ndànk. ay taaku nga xam. barki démb ku doom nday drapeau nga bëre daan ma ku la yóbbu dimanche. photo yaa ngi nii sama téléphone. may yóbbu ay champion nga may wax ay waxu. yow da ngaa yóbbu man damaa dem. muy kii li ñu boole amul nee na daa yóbbu ay ay ay champion man damaa dem. bëri mu ngi nii barki démb yaa mu def lu rëy. daal tàggatool ñu tëj benn yoon. xanaa waaw lii mooy tax nga noppi. waaw di nuyu waa jaamu gën gépp di leen wax na waaw kii nii maa ngi jégalu maa ngi yi nag man un diga man ni laa mel ambiance laay dund. fo ree gis nga li ma fi def nii nii yëpp. waaye jeexagul na commencé gu ma sax. yeggalil. yeggalil bu jeex na fii jeex na de man commencé gu ma yow commencé ko bu yàgg. di woo waa jàmm gën waa Télikaro waa Boronton. di leen nuyu. waaw di leen nuyu di nuyu waa Boronton di leen wax ni man ñooñu laa am waa Boronton laa am. Mm-hmm. barki alxuraanu karim xel mi xol bi chaque jour laa wax de lépp sama lépp laa wax dox de day mel ni laa wax de. micro laa nekk Boronton. di leen woo ci combat bi nag combat bi nee naa la sa bii mooy sama combat léeg porte la woon. Mm-hmm. defe naa ne porte ba ma daaj moo gën a ëpp fop que kii moo gën a këx kii man waruma lii di leen wax lii nag dañ ciy jaar jaala rek ngeen ñëw taxaw seen doom samay mag samay grand frère képp ku dëkk te li maam jaara jàmm gën si kaa mbaaw ak soppee un giga un nekkatul dong un mbëru mbëru jàmm gën mbëru dëkk bi sa waa koñ di leen wax bu jour waa nañ sol lu rafet ñëw nga may leen ay tiset ñu sol xam naa ni bëgg nañ ma mënoo koo gis aalay supporter. man mënoo ma aal supporter jàmm gën laa dëkk. su ma la daanee ba pare. naa la aal ay supporter. di sant maa ngi woo si laamu ji bu baax a baax ñoom Sidi Mbaliru di woo gaay Bacindooy El Capo bi maa ngi lay woo bu baax baax baax.